Bonjour chers internautes de Osar et Célébrités, bienvenue dans votre toute nouvelle rubrique revue Synap lépp loo xam ne moo ngi xew si Synap yi ñu daal di koy jël di leen ko déglu tigé di leen wax benn par Ben tànn ceeb alors gis ngeen tey revue bu leen indil maanaam Synap Aba entre Aba Bijou Ngoné ak Ñamaxit Ñamaxit que seen milieu si diggante Aba ak kii di Bijou Ngoné di leen jaxase <laughs> dama xiir kenn moom alors dem na këñam Bijou Ngoné toog fa yàq fa lu mel ni xeme kii di Abba nee na Abba day toog ay 3 mois 4 mois du gis kii di Abba ñama xit nee na Abba yore na ko bor 3 millions ba léegi fay ko ko ñama xit nee na Bijou Ngoné moo ko gënal Abba moom dafa bëgg maanaam si carrière acteuram acteur am wala comédien am Bijou Ngoné jël ko en charge di ko teg si yoon parce que Abba deful loolu di ko yàq chaque jour Abba yóbbu ko fenn Abba puusul paasul <laughs> mais ñama xit ce que nit la en tout cas si sirab bi yëpp gis ngeen loolu la si raconté mais déglu leen lii tuuti. dafay jeex day jeex wër gi ngay wóor di ma yàq wóor gi ngay wóor di ma yàq loolu moom xoolal day. loolu moom xoolal loolu day jeex non non wër wóor gi ngay wóor di ma yàq day jeex. dem kër bi waaw. kër bisu nga mais pour lan loolu. bisu Fall. Ah, man déglu ko déglu ko may ko moom. bisu am amul lu mu mën ci man mënu mënul ci man loo xam ne mënoo ko ci man. ah bisu nga dama ne man lu ma am yow la. Ah. fu ma toll fii yow la kon na bisu bàyyi yàq dara fi ma yàq dara di di ma di ma. yow demoo kër bisu ngoone démb lu ne nga yàq ma fa naan ay. gisoo bisu. trois ans ngi nii yow. gisoo ma yow mënoo bàyyi fen. yow sax du si yaa ngi doon nekk yaa ngi doon. waaw mais léegi lan mooy problème bi yow bu tax boo wéetee rek di ma yàq. yow kenn mënut a dox sama diggante yow ah barki alxuraan ko def nit dama ne <laughs> bisu moo bëgg a liggéey man xam nu def bëgg bëgg a jàppale sama diggante yow kenn mën dox sama diggante ak yow man ak ba ici repose kii kan la dama ne barki alxuraan ko mais aba aba nga ni ko xam wala lan laay dox kii kii kenn mu ko yàq doomu saraxu la ay saraxuleeg pël amul dara ma ne yow kenn mënu la yàq nag doomu saraxuleeg pël nga na ma may sama jàmm man mënumaa liggéey kenn ku dul yow sama àdduna yow kese yaa ma attan yow yaa mun ci man dara. waaw mais ñoom li ma comprendre mooy lan li yor li nekk ci man ma bokk ak yow mais ñoom ak lu yow boo wéetee nga dem nekk sa bopp mais nga nekk sa bopp bu la neexee sax bul wax sama tur bul wax mais lu tax buñ ne abaa rek nga yàq. mais yow la yàq yow la waaw mais mais mais yow yaay wax na man dama la amee xaalis yaa naan ans ngi nii gisoo ma yaa man dama la utiliser lu ne nga koy wax. lan laa war a ba nga yor ma xaalis yow yaa waxaat ni. non a liggéeyal ba nga yoroon ma xaalis. yow toogoo fi ñu ne interview ngeen dama la amee 3 millions xaw ma. wax nga ko fi damay toog ci dama man yaay sama kilifa. yaay millions. ndogu xoolal booy it ni ñu may damay seetaan match mais xool ni ñu may toppatoowee xoolal. Baye. koo nekk ni yow ci koo nekk ni yow rek la kii moom mu ngi soog a yegg si ok. yow la ñuy kay kay kay ni ma seetlu ma si kay nii ma seetlu de bu gaañ sa bopp bu gaañ <laughs> merci beaucoup. waaw kooku bi jërëjëf na na fi sori. Oh. teg écran bu baax teg écran bu baax. Oh, merci beaucoup merci beaucoup allez merci allez à tout à l'heure non non am tendrement tout, euh, euh café bu après Tu es le meilleur moo ngi ko defee ñaar yal na yàlla fay leen li ngeen def ci man yëpp yal na yàlla fay leen li ngeen def ci man yëpp baal ma baal ma baal ma ci bruit bi waaye damay ndogu dimbali ma rek xoola ah, kii sama digg Aba bii nga bëgg a. lay woo Bijou lay woo. tey doo wax mu maa wax. suma diggee ak Abba bi ko bëgg a yàq maa ngi nii toog ak moom man amul amul lenn loo mën a def sama diggante ak Abba dama ne dama ne bisu tey mën naa war a wax dama ne tey sama bisu wax la mën naa war a wax dama ne yow man maa war a wax laa tey maa war a wax li ma bëgg nag nga am ko mooy yee déglu ko non ah, doo ko déglu du ma ko <laughs> doo ko may mu wax non mais da nga koy may mu wax doo ko may mu wax te liisu man nak dama ne man la man mang lay fekk sa keur léegi. attaqué la ba pare yow til diw sa kor nopi dafa wex tal non poudre poudre la. ok ok ok ok. bisu. bisu. bisu. eh. yii rek no ñama xit mo wax fi ñama xit mo waxat fele bi nat dafa jàkkaarloo ki di abatay neena aba na kaddu yu wax yeb mom mosu koo wax. mosul wax ne Abba dafa bon mosul wax ne Abba day toog 3 mois du ko gis mosul wax ne Abba moo ko yorul boru 3 millions loolu yëpp wedd na ko bu mu set wecc bàyyi mooy seede bi bàyyi dafa jàpp ne kii di ñamaxit seytaane la dafa nekk loolu di jaxase Abba ak Bijou ngoone moom daal weñ rek fu tooy mu daal di tàgg fu mu toll nii nag Abba nee na ko yow danga maa bëgg a jaxase Bijou Ngoné ngoone Ngoné tamit nee na ko dafa bëgg a jaxase Abba parce que moom fu dem fu mu dem rek ne fi moo gën a neex waaye bi ngeen déggee si biir vidéo bi moom naan kii di Abba yow lan laa la liggéeyal ba nga war a amal boor maanaam moom ñoom xit amuloon benn njëriñ kii di Abba donc bu amee koo xam ne moo ci moo si perte ñoom ñaar seen relation moom la mais ñoom xit kii tuyee cinéma bi fu mu toll nii moo dàq sax série yi yoo xam ne ñoo ngi koy suivre tout le temps en tout cas si bu Abba

ñoo ngi ci sina bu kii di Bijou Ngoné ñoom Pawlish Ouzin Keita lu doy waar ngeen di gis ci sina bi mbokk internet yu Wassare Série bi tey leen loo tey seen biir rubrique revue Snap deen dox dig ba beneen si beneen Snap ak beneen influenceur wala acteur wala actrice ak ku mën di doon